li ngeen jëf mbokk internet wasaare news ak lii di Dakar midi ni ngeen ko xamee Sénégal euh, équipe nationale du Sénégal mi ngi fële ca Cameroun di football coupe d' Afrique des nations 2021 dóor kii di Zimbabwe premier match def match nul contre la Guinée defaat match nul contre euh, kii di Malawi génn premier si poulam avec cinq points ñu nar a ànd ak yéen nar a dégtal lii di askan bi ñu joxe seen xalaat si équipe bi joxe seen xalaat euh, si prestation bi joxe seen xalaat si Aliou gaa mën nañoo xam tuuti ak sant bi. oui maa ngi tudd Noyin sant Sarr. dëkk bi bi moom boo bëggee dégg-dégg man oh, man maanaam man dañ maa dañ maa dañ maa dañ maa trompé daal dañ maa trompé. Ah, parce que maanaam li ñu yaakaaroon ak li fi nekk bokkul. Ah. oui li ñu yaakaaroon ak li fi nekk bokkul quoi. bis bu yàlla sàq ah. xam nga bis bu yàlla sàq ñu am yaakaar yi gars yi tas suñu yaakaar. moo tax gars yëpp ñu ngi ci garage dañuy taayal sax seetaani football ah. Hmm. dañuy seetaan dañuy xam ne seen équipe dañ leen te ñun ñëpp mosu ñoo fekk coupe te buñ juddoo léegi mi bëgg a chaque jour xam nga ñu gagné ñu ba final am yaakaar ñu gagné ñu moo tax man damay taayal seetaan sax wax dëgg yàlla gaa yëpp kenn. ñu naan Aliou Cissé dafay war a jógee Aliou Cissé xamul lu muy def Aliou Cissé mënul gérer équipe nationale. non Aliou Cissé de Aliou Cissé day taareel booy parce que même booy jaaw ba sax Aliou Cissé ko taareel booy jaaw booy bu am talent la mais Aliou Cissé da mais na jéem a jubóog booy dafa xuloog booy Aliou Cissé jubóowut ak kenn ñëpp la xulool. booy quoi booy yëpp la boo yëpp moo leen tardé ba pare xuloo ak ñoom loolu tamit doxalul société bi quoi vraiment. war na xool lu gën bi nga xam ne depuis euh, un certain temps mooy mu a yàgg mais mënul fexe ba indi ay résultats. yow waroon na xool équipe euh, équipe nationale 2002 équipe nationale 2002 gars yi indiwaat leen ñu entouragé booy yi waaw leen parce que équipe nationale 2002 am na loo xam ne def nañ ko fi quoi def nañu dem nañ mondial dem nañ d'Afrique finale xam nga waaw ay jàmbaar lañu woon quoi. gars yi bu ñu jegee équipe bi rek xëy na équipe bi mën na soppeeku mais ñi ma gis nii nii mun moom mënuñoo doxal équipe bi quoi. waaw euh, sëñ bi nañu xam tur beeg sant bi. Mouhamed Sané. Mouhamed Sané tey Sénégal football deuxième match troisième match am. dóor premier match bi Zimbabwe deuxième match bi mu niil contre Guinée tey mu ñëwaat niilaat nan nga jàngatee équipe bon équipe bi de moom yaa a des problèmes trop de problème sax am na ay problèmes yu bëri des failles si milieu terrain bi. tey boo doon seetaan Maxime doo xam kan mooy joueur numéro 6 doo xam Gana Gueye la doo xam Kouyaté doo xam Nampalys Mendy doo xam kan mooy joueur numéro 6 militaire moom ay faay militaire militaire amul jeu rek football du dox. nan nga gisee coaching wu tey Aliou parce que depuis le premier match bi ñu ngi euh, ñu ngi ñaawlu nu mu yoree équipe nationale changement yeeg ak yenn tey Koulibaly tamit ak Koulibaly bi mu jël Euh, le départ de Koulibaly c' était normal parce que Koulibaly leader équipe la mooy capitaine tamit c' normal mais parce que faayam si moom maanaam manque de repère si terrain bi gëj naa football boo xoolee Koulibaly gëj naa football manque de repère mais bii di ñëw incha allah dina baax Aliou Cissé moom côté moom Cissé Sénégal moom ñëpp ay kaas ñëpp ay wax ñëpp ñëpp ay kosu lañ Sénégal moom ñëpp ay kosu lañ partout ñëpp wax mais foo mu concentré wu xam la muy def mu see génn. tey entraîneur Famara Diédhiou yow lan nga ko gisee te si dernier dernier jàpp na ni moom mooy euh, euh, serial buteur équipe nationale. waaw Famara Diédhiou dafa waroon départ à la place de kii Dia Famara Diédhiou moo fa waroon nekk Bam Bam. Boulaye Dia Boulaye Dia à la place de Boulaye Dia Famara Diédhiou moo waroon départ parce que Famara Diédhiou bu duggee day am intensité moom attaquant la day il marque. Il marque trop de buts. Et l'entrée de Bamba, c'est pas l'appel. Bamba foo waroon xaar tuuti rek bu na xaar Bamba rentrée bi moom c'est pas normal. waaw mën nañu xam tur beeg waaw man maa ngi tudd Pape Sylla dëkk Pikine Icotaf waaw. nga gisee équipe nationale. équipe nationale moom ah dañ dañoo bett tey si football si bett ñu lu bëree bëri bëri ndax niveau bu ñu joué waroon nañ dépasser niveau bi lu bari bari si football waaw. parce que depuis un certain temps dañuy yaakaar seen équipe mais dañuy am déception à chaque fois comme tey jii nii ñu ñu doon yaakaar ne tey équipe nationale dina dóor avec la manière génn premier malgré que premier la génn mais Sénégalais yu bëri gisuñu seen bopp. non man bu ma xoolee premier match contre Zimbabwe laa njëkk a ndax quatre-vingt-treizième minute nga am penalty dugal ko. ba léegi Sénégal gañeegul si match bi premier mi-temps nga xam ne deuxième mi-temps day ñëw gañeegul score benn 1-0 la gañe ñaari match yi si des yëpp daf ko nuyul waaw xam nga tey man loolu ànduma si moom. ak keneen ak keneen bari naa si ay moroom yoo xam te ñu si ndax Sénégal moom niveau bu ñu ñuy footballé bokkul ak niveau 2002. 2002 dañuy xam ne Sénégal ku mu mën dañuy xam ne dañ koy dóor score avant ñoo premier mi-temps ñu tàqali koog moom loolu moo ma jaaxal nag si bi waaw. gisee euh, gestion Aliou maanaam coaching Aliou Cissé non Aliou moom dama yàgg wax ne man gëmuma ko man man gëmuma ko nañ dem seeti keneen koo xam te moo ko gën wante Aliou Cissé Augustin Senghor Matar Ba ñoom ñëpp dañu war a gore démissionné ne bàyyi nañu ndax munuñu ndax bu ñu mënoon tey boo tante nit dara booy def dara boo ko mënu boo si essayé rek daa wara a xam ne yow mënoo ko waaw du ne may nañ ko sens mayaat ko sens mayaat ko sens tey bu demoon ba final bu ñu indiloon coupe sax dañuy xam ne munul ñëpp a koy jot a wax munul ndax ñëpp Sénégalais yëpp xam nañ ne munul bon jeex na tàq na bàyyi. grand mën nañoo xam tur beeg sant bi. Basirou ah. tey Sénégal football troisième match am defaat match nul ginnaaw bi mu defee match nul contre Guinée ah, defaat euh, dóor kii di Zimbabwe difficilement nan nga jàngatee tey sortie bi. bon sorti bi tey bon vraiment li bett ma woon quoi. parce que boo seetloo ñun du ci problème mu joueur yi. problème classement la ñu am Aliou nan la mën a ñëwee tey di def trois milieux terrain récupérateur yow alors que nga war a dóor pour gagner loolu baaxul c'est pas normal alors que des joueurs yoo xam ne occasion yi ñu am di ko rate tamit dafa bari trop mal malgré gardien mi Mendy moo ñu ci génnee boo xoolee Sénégal match yu mu yëpp yëpp difficilement la ci génnee mais match yu mu yëpp dafa waroon jël bi tey Sénégal nekk première. au niveau euh, africain nekk vingtième niveau euh, niveau mondial tey daje ka nga xam ne xamuñu ko sax presque si fu football il fait partie parmi les les équipes les plus faibles les plus faibles waaw ñëw génn ba classement génn difficilement la génnee ba pare moom mi ngi génn di je je ne sais pas ba xam génnam de parce que de Guinée lañ def deuxième deuxième lañ def lañ def <laughs> moom mu génn meilleur troisième mais équipe bi daal war nañ ko xoolaat buñ ko xoolaatul dañuy génn huitième de finale ñu gagné lan ngay gisee taxawaay Aliou Cissé depuis le début. depuis bi mu ba tey parce que tey jii mu ngi mu ngi fiy bëgg a yàgg mais résultat. Aliou Cissé bon Aliou Cissé c' est problème mooy. gis nga équipe bi entourage bi yëpp la ñu war raxas ñu dàq leen. du ci Aliou Cissé kese de parce que Aliou Cissé damay jàpp ne moom moom li muy def daañ ko koy dicté. parce que noo mën a am jour yi baax ba pare xamoo ni ngay classé nga génnee Saliou Ciss génnee latéral ba pare di dugal kenn lu kenn xamul. mais alors que yow période boobu yaa ngi woon soxla pour pour nga génn ci match bi. lan ngay gisee ñi taxaw ñi taxaw. fu mu toll dañ leen a war a dàq. andi ki nekk génération foot euh, Madi Touré andi ko Madi modèle la pour mën a gérer équipe bi mais ay Augustin ñooñu dañ leen war a dàq ñooñu dañoo pare ñooñu taluñu sax équipe bi dañoo nekk ci campagne électorale lañ nekk di ko gere xam nga ñooñu nekkuñu ay modèle yoo xam ne war nañ leen a mën a jox pour ñu téye équipe bi. yow nga war en tant que équipe nationale war a dem coupe d'Afrique nga lépp loo waroon def nga war koo bàyyi bàyyi ko nga nekk ci ay campagne électorale di sonal ñin loolu c'est pas normal. supporters yi sonn nañ instant bi boo xoolee internet bi yëpp yi supporters yi malgré génn nañ mais génn mi neexu leen man bu ma sañoon sax dafiy yem mu jeex parce que lii amul amul sens lii lii nii mooy loolu. yow mala wi gaaxam mënoo ko tenir en échec yow boo génnee am na ci bi yooyu daal da ngay am problème. surtout surtout génn bi ñu dimbali. mooy dañu am gardien bu baax lool moo tax pour ñu jël bii day jafe loolu rek moo ñu pour ñu jël bii day jafe suñ défense bi baax na mais nañ xoolaat daal Aliou Cissé classement bi muy def na koy xoolaat. ok jaajëf parce que bi daal gis naa ni ni muy classé ak li muy génne ak li muy dugal loolu mooy problème bi. donc moo tax équipe bi pour mu gagné day jafe ta leen tamit am na mooy équipe bi toujours bal yi ñuy jël di ko delloowaat ci ginnaaw bari na nañ joué contre bu ñu joué contre nañ joué contre son camp mais boo jël di retraité parfois ñuy am yenn profondeur dugal gaaw vite fait yooyu da ciy baax mais buñ bëggee buñ gisul benn porte ñu wàññeekuwaat loolu amul sens. noo gisee équipe la. bon déception franchement. parce que ci carte ci bu ñu demee si papier Sénégal mooy meilleure équipe la ñu wax quoi bu dee joueur individuel tamit ñun ñooy yor meilleur yi franchement bu dee ci Afrique. parce que boo demee compétition yëpp international am nañ fa ay joueurs yu nekk au niveau mais problème mooy collectif moo ñu manqué quoi te loolu base mooy entraîneur ku koy liggéey ah, Aliou Cissé am na yéene mais wane na fan la yem limitam pour man quoi jot na nañ ñu xool koo xamante ne nii tey moo ëpp niveau Aliou Cissé pour ñu mën a dépasser fii ñu toll quoi parce que mënoo yor meilleure équipe ci Afrique yor mais joueur yi ci monde bi te yow mënoo egg fenn fi mënoo jël coupe yow nga ñëw sa sa sa poule ah sa sa sa sa groupe benn bii nga dugal xam nga loolu tamit gàcce la quoi ci Sénégal tey ku ñu waroon a yab rek yab nga ñu quoi ba pare en parlant général commencé ci ministre bi. ministre bi ñun xamuñu ministre dañuy ministre de sports pour man ministre de làmb ko quoi franchement ci làmb la gën a concentré wu ko ci football. donc kon foofu day des nga ñëw ci Augustin Senghor koo xam ne ñun avant ñoo judd ba tey mi ngi fi nekk moom tamit dafa jot xam nga mu gore bàyyi ñeneen ñëw parce nañ bàyyi xale yi may leen seen chance quoi comme tey su ni ñi amee joueurs yi nga xam ne ay xale lañ. ñi ngi wane ne ñoom ñoo fi mën ci monde bi ñi ngi wane seen bopp donc dafa jot tamit Sénégal muy ministre beeg fédération bi lépp ñu bàyyi ko ak xale yi ñu wane tamit seen capacité quoi parce que génn nañ am nañ expérience mais ñee dañoo wane xam nga ay mag lañ quoi affaire bi raw na leen waaw donc bu ñu mënoon jàppale quoi parce que ñun tamit Sénégal ay Sénégalais lañ duñu ay Guinéen duñu ay Ivoirien wax dëgg yàlla luñ critiqué critiqué tamit suñu sayoon ñun ñu jël dara quoi franchement dinañ critiqué nag parce que dañoo gis lu ñu neexul mënuñu yor ñi fi mën jël suñu cinq milliards jox leen ko dem ñuy am benn bit benn bitu penalty yi ñu ne ñun ñooy première xam nga déception la quoi gàcce cee ñun nag bu ñu sañoon wax dëgg yàlla Sénégal euh, jël coupe mais instant moom yaakaaruñ ko li ñuy fubal bu changé wu yaakaaruñ ko wala boog dina doon luñ bett trop franchement quoi waaw. meilleure équipe d'Afrique nanu wax mu génne si poulam première jël première am benn but la dugal si compétition penalty ñu ni mooy meilleur da équipe d' Afrique niveau dafa baax waaw dafa xamuñu dara loolu mooy wax ji. nanu caaw <laughs> Aliou Cissé moom football da ko raw niveau football moo ko raw football toll niveau yi nii bu ñu ko comparé sax équipe nationale ak Portugal bu génnee si coupe d'Europe bu jël première. noonu xool Portugal bi muy jël coupe d'Europe poule bi mu nekkoon yan équipe ñoo fi yan yan yan yan yan équipe ñoo fa nekk bu bu bu sax comparé loolu équipe national Sénégal Afrique sax laa wax seen seen niveau football moo baax football da raw donc ñoom ñëpp a war a bàyyi football loolu mooy wax ji. jaajëf. bu nga ni ko ñii mënuñoo jël coupe d'Afrique bi. moom. coupe bi moom luñ ko jël moom. coupe moom boo bëggee dégg-dégg buñ ci sax def suñu yaakaar parce que amuñu talent bi quoi. talent bi tax ñu war war a jël équipe jour. dañoo ah. manqué de patriotisme. waaw amuñu amuñu mm. euh, ñi nga xam ne. Mm. Euh, ñu ngi fubal depuis début kan bi. waaw xam xam nga xam nga yi moom xam nga ku ci mel ne Samuel Eto'o tey xam nga gis nañu entouragé booy yi comprendre nga mi ngi leen jàppale xam nga Samuel Eto'o jàmbaar la quoi. mais équipe nationale bi euh, ancien joueurs yi Aliou Cissé xajalul leen xajalul leen quoi maanaam xëccul leen da leen kenn ku nekk xam bu leen xëccoon rek xëy na ñooñu am nañ expérience boo xamante ne nii mun nañoo doxal équipe bi mais dafa écarter ñooñu noonu xam nga pour ñoom ñooñu bu ñëwee tey xam nga place am à 100 pour cent du dox te pourtant ñooñu am nañ expérience boo xam ne tey mun nañ ko koo jëriñ ci équipe bi waaw da leen waroon xëcc quoi jege leen. waaw gore di campagne. waaw Augustin muy moom it xam nga yaa ma gën a xam. président fédération. ok merci merci jaajëf xam nga. mi mi di campagne. te mooy président fédération. kooku dañ ko war a dàq indi keneen. Hmm. kooku ànduma ci. kon jàppoo comme ni muy def des fois match bi defee deux deux jours mu jël avion dem. fekkee c' est pas normal moom maanaam moom i day every time daa war di jege gars yi. engagé wu jël engagement parce que instant bi nii nii moom li nga war mooy mu sës booy yi tatafu leen di leen jàppale mais nii nii nii nii nii nii kenn gisu ko. ma ay Matar Ba ñooñu noonu xam nga fédération boobu la ñu war a tas. ay Matar daal la ñu war a tas. Matar Ba sax dañ ko war a wàcc indi keneen. waaw man loolu man maa ko wax waaw parce que Matar Ba moom doxul doxul sport bi quoi mi ngi campagne. lamb sax la gën a lamb sax la gën a siiwul. daa bi kii équipe bi dina jël coupe. waaw bu ñu gëmee ne mën nañ jël coupe moom bu ñu ko gëmee. ndax bu ñu nekk di ko comparé ak ak Portugal bii passé Portugal dafa génn presque deux points. non man gëm naa ne Sénégal euh, mën na jël coupe bi parce que bu ñu xoolee côté défense ndax am na suñu défense baax na mur bu baax la góol ñu ñëw suñu góol moo nekk meilleur gardien di monde en deux mille vingt et un ñu ñëw milieu terrain Idrissa Gana Gueye Cheikhou Kouyaté Nampalys Mendy ñoo ñëpp ñu baax lañ nga ñëw at milieu terrain sa attaquant bi boo xoolee kii Boulaye Dia moom moo nekk Villarreal di football. booy si Famara Diédhiou moom mooy prouver seen équipe Habib Diallo Strasbourg moom mooy fubal Sadio Mané kenn du ko naatable Liverpool moom mooy seen yaakaar waaw nga ñëw indi Pape Matar sax ay boo yoo xam ne ay Bamba Dieng boo yoo ay Pape Gueye ñoo ñëpp ay équipe ay yaakaar ëllëg lañ Sénégal si fubal Sénégal boo ñoo ñëpp am nañu chance pour ñu fubal si équipe bi nga xool tamit ay Diao Baldé Keita bu demee bay toog banc di fubal si clubam bon nga xam ne Sénégal équipe bu baax la yor ku ñu yor rek moo xamul dara muy Aliou Cissé. jàpp daal moo yàq équipe. tey xale bu ndaw sa boo ko joxoon na ko classé équipe bi dina ko classé Aliou Cissé moo munul ndax kenn xamul ban système de jeu lay footballé waaw tey bu ñëwee changé li changé lii équipe boo xam ne keroog footballé noonu ay joueurs yëpp ñëw wekkuwaat équipe bi yëpp loolu da ngay jaaxle dafa ragal wala nu fa demee noonu la ñuy laajte waaw loolu laa amoon si lu bett nañ trop waaw ndax yaakaaruñu woon niveau bi Sénégal.